ñii di ndaw journaliste yeek stagiaires yi duñu gëstu tax yi nga xamante ne ñoom ñoo leen régir lii di ay kàddu Mamadou Ibra Kane ki jiite kuréel bu ëmb ay patron de presse ci biir Sénégal gi rekk fàttali solos convention collective biñ fa signé ci atum 2019 euh, convention collective bu ñu woowee convention collective interprofessionnelle moom mooy régir euh, ñooñu donc baax na en tant que jeune ma xam euh, lan la code du travail wax su fekkee ne jeune diplômé laa mais ut liggéey wala ma bëggoo ut euh, stage da dama war a xam yan droit la am taskatu xibaar bi di ñaawlu itam rax bi nga xamante ne rax nañ ko métier journaliste bi ci biir Sénégal mu jàpp ni que carte nationale bi mën na setal milieu bi euh, képp ku daan jog rek dafa daan ne moom journaliste la wala technicien de média ñu ne loolu mënul mënul wéy parce que da nga daan dem ci manifestation nga gis ay nit ñu bëri donc coppite boobu vraiment c'est important pour assainir l'accès à la profession. leneen lu muy ñaawlu itam di entreprise de presse yu bëri nekk ci bi xew mi te nag respecté wuñu norme yi. organe de presse laa war a wax sax parce que ñooñu duñu entreprise de presse dégg dañuy engage ay journalistes ak ay. technicien des médias te duñu respecter la loi boo buggee créer entreprise de presse il faut que nga am ay conditions yi nga xam ne da koy respecté soo ko respecté da ngay am une sorte de certification de la part euh, du ministère de la communication. Mamadou Ibra Kane di ñaawlu itam lii di dellu ginnaaw bi nga xamante ne Sénégal dellu na ko ci rapport bu Reporters sans frontières fësal jëm ci wàllum liberté de la presse te nag daa di classé Sénégal ci téeméer ak ñeenteelu position bi loolu waral réew mi ñàkk lu toll ci fanweer ak benn place ci atum 2023 bi.